Euh, Maître El Hadj Diouf nuyu nañ la. jërëjëf eh, maa ngi lay fay soxna Souka. ah maa di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. <laughs> Eh, di tey moom da ngaa ñëw bëgg. di nuyu le maire de Dakar Barthélémy Dias. Hmm? macha allah ku baax koo xam ni euh, visionnaire ñu koy nuyu eh, di rafetlu gis-gisam ak démb sorti bi mu sorti ci maman bi mu sortee mu nekk maman très important. Eh, ñu koy sant di ko gërëm di ko wax ne ko doyen bienvenue ci Benno Bokk Yaakaar. merci yow de ah. ah moo euh, xaw ma de. yow yaa dugg yow yow yow sabab yaa duggagut yow mi gis lii lépp naan ndax day dugg duggut yow yaa xamul foo foo ne. Euh, Maître El Hadj Diouf dama lay féliciter sax félicitation yow yaa ngi féliciter ki nga xam ni moom moo di Bart waaye man yow laay féliciter ndax démb yéen yéen a gagné procès bi noo def ba gagné ko waaw ni ma parce que day daggal di wax lu ko kan la di rii tàmbale <laughs> <laughs> <laughs> procès boo xam ne bi kenn du la weddi. <laughs> loo xam waaw. man maa yow laaj maam Mbaye maam Mbaye lu mu saaga na ma. nga ko waaw yaa yàq mu ma ne bu télévision xool leen lii kenn du weddi avocat ah, ci biti génn wax soo koy waxee. man kese ma ne ci saal bi di wëndeeloo. naan ko maam après mu wax la lan maam Mbaye dama mu saaga ma mu ne ah, juge bi laaj <coughs> juge bi xamul ci mbir yi lu bari. ma pare bu ma waxee ba pare ne procureur procureur Diop daal woy woy c'est allah di wax di ñu daal di tàccu ñu àtte. kon procès boobu yomb na. na ah, benn vingt eh, quinze quatre-vingt-quinze milliards kenn la ko ëpp na. Mm. mu ne waa kon vingt-neuf milliards après ñu wax juge ne ko waa kon boobu vingt-neuf milliards. vingt-neuf milliards juge loolu dañ koy yemale fi nga xam ni fa la nekkoon. muy deux cent millions waaye saaga yeeg yooyu injure yooyu. Mhm. loolu dañ koy àtte. Mhm. maam bay bëgg a jooy ma ne ko. Oh. bul jooy bul jooy jëlee sa xaalis te ah, jot na ci xaalis bi. jot na ko ci sonko sonko nañu war a moom fu mu koy jëlee nañu nañu def lancé kañot kañot na pour fay bor. bor ban. maam bay la yore deux cent millions mu naan du laal fukki dërëm. <laughs> nañ jox dërëm sax du ko laal. waaw ah, loolu wax la loolu wax sànni ak wax li ci biir lu mel. <laughs> ah léegi nag yow démb bi nga gisee Barth toog hmm. wax ay waxam. en tant que avocat nga toog yow nan ko dundee Me El Hadji Diouf. ah de bi mu waxee. Mm-hmm. Eh, dama ko xool. waaw observé ko parce que man dama am regard ci bu nit ki di wax dëgg ak bu wax dëgg. <laughs> bi ma xoolee Barth bët yi di signalé. dëgg sincérité sincérité muy kàddu gi muy yëkkati kàddu dëgg gi. Eh, nit ku ne. làmmiñu Bart bi ni muy waxee. Ah. il est pas de trac moo lay wane ne Bart wax ci waxu dëgg la Sonko dafa mën a tooñ dafa mën a tooñ day tooñ yow Bart téléphoné la lekk nga génn live na moytu internet bi. <laughs> na moytu internet bi lekk live ay wa live ñu ne Sonko va parler le eh, Sonko ah nu nu mu defee eh, diffamation et continuer lu baax rek gën taal taal internet bi Sonko la wax yow tamit yow loolu dégg ba pare moom nga baal na bi muy commencé dafa wax loo xam ni waaw Bart dani bi mu toogee di wax ak président Sall mu naan ko ak lan ak lan dañu ko yow président xam nga ni man àdduna yàgg ba mën nekk ak yow di liggéey ah, dama ah. sa opposant laay ma sa doon président ni ko waaw dégg naa loolu dégg naa wala mu ne ko baa xam nga da xëcc te ñun dañuy xëcc doo bàyyi du bàyyi léegi lan nga mën a ñëwee fii naan bienvenue xaw ma la at bokk yaakaar waaw loolu nga dégg waaw waa ah, dëgg la ma gis. léegi da ngay nopp bàyyi bët. daal merci moom li ma bokkul. léegi Me El Hadj kii vraiment kii comédien la wala. comédien la Me El Hadj Diouf plateau bi il euh, nga gisee euh, léegi yow nan nga xamee nit ku bëtam di pétillé. rek sincérité bi dégagé ci bëtu Barth yi. waaw ak Barth mi wax il est à l'aise pare dem Touba siyaare ji. na demee. non xam nga bi muy wax nee na boo gaaw leen damay dem Touba. Eh, après dem Touba ñu waxtaan macha allah Bart daal léegi eh, màgg na. Bart mm-hmm. nag du ko def parce que doo doon booy booy ba yëg ni ba doom juróom ko ne ko père. Mm-hmm. voilà la fay dégg. waaw li may dégg sama kër la Bart. nee Bart ko mag. sëñ bi loolu yëpp laaj ma non non non mais boo nee boo nee màgg na Sonko ko mag Bart Ousmane ah, Sonko ko mag. non non xam nga boo fi invité eh, avocat bu amul xam mais bu dee amoon xabaar ñu wax la ko Ousmane yow waroo ñëw ci eh, ko ne ko laaj ma Sonko moom moom ak Barthélémy naan dafa ma Me El Hadj Diouf léegi Me El Hadj Diouf ah. euh, euh, Ousmane Sonko ah. moom ak Barthélémy Diaz léegi loo may wax man man léegi lu may wax ci loolu laaju ma la ko nga ko wax du yow yaa ngi nii waaw yow a maas bu baax masali masali est-ce ma bu baax masali xale la de yaa jël <laughs>